246 candidats qui retirent des fiches de parrainage euh, des candidats qui sortent de terre doo xamatoo sax même la presse na si na si na si nuñ ko defee yéen ko def bi ñu waxee nañu def parrainage nañu filtré yéen ñëpp ah non man man je soutiens à 100 ah, pour cent à 1000 pour cent yuuxu ne parrainage ah, bu ah, am man maintenant jàpp naa ne il faut même durcir les conditions mais c'est ça du parrainage bañ koy def du woon bañ ñeeg ñi nekk candidat mais mënuñu topp nit ñi ci ci seen bakkan rek man jàpp naa ne sax même par euh, caution bi dañ ko waroon anticiper. vraiment euh, parce que nag li am aussi. dafay ñaaw ci sunu démocratie foofu laa jëm retrait fiche de parrainage est-ce que amul réforme yu ñu war a tegaat pour que notre démocratie ne soit pas chahutée. parce que ku tëb ne je candidat à l'élection présidentielle. man pour man réforme qui s'impose parce que aussi le piège c'est que mooy concertation ak dialogue yi ñuy def dialogue politique yi da ngay am plus de trois cent et quelques parti politiques majorité bi fu ñu xaw a penché rek l'État se euh, dans l'obligation de suivre un peu les gens mais parfois aussi état euh, il faut que mu jël ay responsabilité comme ni ñu ko defee dans le passé nit ñi yuuxu nañ mais terewuñu woon parrainage am na. aujourd'hui beaucoup de sénégalais son d'accord. waaw mais loolu nag na continuer man je pense que élection yi bu passé il faut que ñu indiwaat parrainage bu dëgër pour éviter d'abord ñu ridicule premièrement mais éviter problème grave parce que tey jii. su ñu demee am lu mot cinquante candidats yu am parrainage. fu ñu jëm naka la ñuy defee élection présidentielle. on a eu quinze ans en en en mille douze ans. xam nga loolu ça pose problème élection bu baax mënu ci am donc euh, limiter ak réguler c' est pas contraire à la démocratie su fekkee ne. régulation bi du automatique parce que nit ñi ku ci nekk yaa war a ànd ak sa sago euh, xam sa bopp waaye ku jóg rek ne man damay nekk candidat su fekkee nit ñi ñoom loolu moo leen gënal mais état bi moom dafa war a réguler am na yeneen réew yoo xam kenn réguler wu ko waaye États-Unis balaa ngay jóg di ne da ngay dem campagne di nga wax lu set doo tëb tëb rek di ko def donc defe naa aussi les acteurs politiques et de plus en plus d'ailleurs d'autres acteurs parce que ñi nekk candidat peut-être plus de la moitié ne sont même pas des acteurs politiques donc war nañu xoolaat loolu quoi